Sénégal ak kan la. Côte d'Ivoire. arbitre bi sifflé gis ngeen Sénégal ñëwaat na ci compétition bi. Ndeysaan mu ngi ne. Côte d'Ivoire. Moussa Faye Ndeysaan moo fare càmmoñ. Moussa Faye moo ñu ngi noonu Sénégal Côte d'Ivoire. Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal seen. Ndeysaan Côte d'Ivoire rouge ñoom ñaar ñu ngi noonu. ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi jàpp na jàpp na jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na wër na ko ndomba wala déet senegal jàpp na wër na ko ndomba Sénégal wër na ndomba senegal wër na ko ndomba senegal wër na ko ndombo senegal Côte d'Ivoire trois appuis daan na ko Sénégal daan na Sénégal daan na Sénégal daan na